mbokk yi ni ki tey di euh, dimanche le 5 mai 2024 combat bi dox ci digganteeg Eumeu ak kii di euh, Sathies jamono bi may wax ak yéen kii di Sathies def na départ jëm foofe nga xamante ni moom moo di ca arène nationale ñoo ko gisandoo ci image juli di départ bi nga xamante ni askanu Sénégal ñu ngi ko tuddi départ mystique de euh, Sathies ndax Sathies combat tey bile lenn képp la gis moom moo victoire ginnaaw ba Eumeu seen daane magam bi di Balla Gaye 2 ñaari yoon Sathies tey nar a ñaar ndax dafa nar a bëreel boppam waaye nag fas yéene jëlal revanche ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye 2 nga xamante ne moom moo di ca arène nationale am sax ñu ko tundee le combat di sekk ndax combat bi dina doon combat bu neex lool ndax ñaari bërekat ñu fa seeni euh, sëgg tey foofee ca diwaanu arena mbokk yi wéy leen di abonné nii lañ koy defee saay su nekk di leen toppal combat bile jërë ngeen jëf